sëriñ Mansour si Dabakh mi teewal xalif général de Tidiane di sëriñ Yuusufa Diop takbir allahu akbar allahu akbar bismillah dama am fit tey Mbaa booy demaat day toog sonn naa waaw te dama doon si yow kaay nga jël allahu akbar allahu akbar allahu akbar bismillahi rahmani rahim alhamdulillah الحمد لله الذي خلق الإنسان وفطره على صبغة الإيمان وحثه على اقتناء الفضائل وحذره عن ارتكاب الرذائل القائل في محكم تنزيله أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم ظلمتم قوم عدوم ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتاتون الرجال شهوة من النساء بل أنتم قوم تجهلون وصلوات الله وسلاماته على الفاتح الخاتم القائل في جوامع كلمه من راى منكم منكرا فليغيره بيده وان لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان صل اللهم عليه وعلى اله واصحابه وخلفائه ومن سار واستنار بنهجه الى يوم الدين حضرات السادة والسيدات أعضاء جمعية معا لحماية الأخلاق النبيلة أيدكم الله بروح منه إننا لنعرب لكم عن تضامننا البالغ وتأييدنا المطلق بقلوبنا وقوالبنا المنبعث من أعماق مشاعرنا لهذه المظاهرة الدينية المنظمة هنا في ساحة الأمة بكولوبان والتي تهدف إلى رفع طلب ملح إلى الدولة السنغالية وإلى سلطاتها لوقف كل البرامج التي تحت كل ما هو شذوذ جنسي كاللواط والسحاق وما شاكلهما ونرى أن مثل هذه المبادرة تعتبر في منظورنا الشخصي بداية لنضال مرير يدعو ويحتاج منا جميعا معشر المسلمين وتعاقبة ومبادرات أخرى تكمن جميعها في بذل مزيد من لم الشمل وتوحيد الكلمة وتصفية الصفوف يقول الحق سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ونرى أن قوتنا نحن تكمن في وحدتنا هذا ولما شعرنا بتعذر حضورنا الشخصي أوفدنا أخانا السيد محمد المنصور عبد العزيز على رأس وفد من أبناء الأسرة لتمثيل الحضرة المالكية الجواونية ونرجو من الباري جلت قدرته أن يكتب للمنظمين كل نجاح وتوفيق وفي في كافة المستويات يقول الله سبحانه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم وفي الختام فالله نسأل أن يشتت شمل هذا القوم ويفرق كلمتهم ويمزق جموعهم ويكسر شوكتهم ويجعلهم مغلوبين لا غالبين بحق قوله تعالى لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز إنه ولي ذلك كله والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أملاك من إملاء السيد أبي بكر محمد بن منصور الخليفة العام للطريقة التجارية بالسنغال كوفي قتل ci nusuus sharciya yii ñu wax ci alquran wax ko ci ahadis rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi dafa ni mi ngi nuyu waa Sénégal gépp di ndokkeel bokk yi nga xam ni ñoo am initiative bu organiser lii muy mbooloo mi tënk seen bopp ci li ñuy wax ànd aar jikko yi mais ci ndokkeel ci di ca jiital ci nga xamante ni mooy Aboubacar Mbuub mi nga xam ni moo ñëwoon toog ak moom yëgal fa daje bii di wax ni ci man Seydi Aboubacar Mouhamadul Mansour ci turu rakkam ji nga xam ni moom la fi yebal di Seydi Mouhamadul Mansour bu Cheikh El Hadj Abdoul Aziz radiyallahu anhu mu ànd ñi nga xam ni lim nañ leen ñëpp ngir ñu ñëw teewal ko gannaaw bu yëgee ngant ci yaramam keroog bi mu wax ak Babacar Mboup dafa wax ni ko daje boobu ngeen di woote. maa ngi yéen ci biir ak ci ma yàlla mayee kattanu fekke ko ma bu ma ko mënul nit ma wut loolu la waxoon dara kon mu yàlla dogal na kattanu teew mu yabal ki nga xamante ni bii moom la yabal mu ñëw teewal ko muy Sidi ak Seydi Mahamadou Mansour wax ci yëpp li ko biñ ci gudd ko gàttal mooy ab jullit benn sañu la téye loxoom ni lii sama yoon amul benn jullit bu sañ a téye loxoom ci lii lii sama yoon nekkul ci kon nag ñun jullit ñi ci boppam ñoo war a boole suñu bopp am nañu ay expérience yu fi jaar Babacar Mbuub lim na ko léegi te yooyu yëpp ñu naax saayal ko na ngeen yëpp ni kon suñu kand ci la loolu nekk kand gi nag a jiitu ci kand googu ngir mu mën a am doole mën a ñu mën a jot li xam ne moom lañuy ñuy wut. mooy kilifa yi diine yi ànd joxante benn loxo ñu ànd ak ñi nga xamante ni bii ñoo topp ci seen gannaaw ñëpp ñu jublu ñi nga xamante ni ñoom lañ war a jublu wax leen li nga xamante ni bii moom la ñu mooy atte bi yàlla fi nga xam ni ko fi nañ ko naasaayal te ci turu réew mi ci turu ñi ko dëkkee loolee tax ñu arrêté ko comme ni ko sëñ Babacar bu waxee léegi mais sëriñ baa kontaan bi yëpp bi daal ñu ngi ànd ak yéen biir ak bu ngeen jógee ci lii lépp lu ngeen di tabbi nag bu ko yëgee def ca la ma incha a taala ba ba ñu yàlla di yóbbu ci li nga xamante ni bii mooy li ñu bëgg te mooy assemblée nationale ak gouvernement du Sénégal ànd ci arrêté programme yi ak agenda bi ñaareel ba it aussi mu ci budget bi fàttali leen la góor bu baax ga Mawlana Cheikh Hadj Abbas radiyallahu anhu wax leen ngeen jub fitna adduna bi yàggul léegi mu jeex ngeen taxaw ci seen kanamu borom fexe leen ba loolu leen indi muy lu ñu war a wax muy muy ak muy muy projet de loi ngeen fexe ba loolee ngeen xam ni di ngeen taxawaat ci seen kanamu borom lay ko kon nag li ngeen di signé na ngeen ko xam commencé ko ca ca kaw ba ci ba ci suuf di wax rek ni waxoon nañ fi am na njiital réew mi fi ñëw sàkku ci suñu njiital réew mi. tudd ko ni ko dañoo bëggoon ñu doxal lii nga xamante ni ñun moom la xeex tey moom mu teg te ni Sénégal pareegul ci loolu sëriñ bi nee na na ci teg ni Sénégal pareegul ci pare Sénégal bi ci ah, defoon mukk dina yow mi dalkat aadaw billahi tawfiq assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh